am na réeroo bu am diggante comité d'organisation Màggalu Tuuba ak euh, takk der yi nga xam ne ñoo ne ci tali bi di lijjanti circulation bi loolu am na eh, ni mu amee itam mooy euh, comité d'organisation Màggalu Tuuba bi nga xam ne ci ndigalu xalif général des mourides la fi nekke eh, mu tànn ay commission seet lépp loo xam ne du war a mën a ñàkk ci màggal gi mu teg ko seen loxo ñu di ko liggéeyal ci màggal gi ngir bëgg màggal gi ni mel ni mu war a mel mu nekk comité boo xam ne dañ ciy liggéey ginnaaw màggal gi ci lay tàmbali di ci liggéey di ci def ay réunion fii ci résidence Cheikhoul Khadim bii mu commission bu sëriñ bi fonk comité bu sëriñ bi fonk ba sëriñ Cheikh Bass mu Cheikh Abdoul Khadir mi ngi xam ne mooy porte parole mooy président euh, comité d' organisation Magal Touba boobu ah léegi nag. bi nga li nga xam ne comité bi defar na ko muy eh, laissez-passer boo xam ne logo comité bi moo ci nekk wax dëgg yàlla wane nañ ko ba tàyyi ci ci réunion yi ñu am ak autorité bi ñu de ñu defe ne ñoom danañ ko wan seen ndaw yi takk yi ne ci tali bi waaye wax dëgg yàlla bi màggal gi tàmbaleeg léegi ñi nga xam ne ñoo bokk ci comité bi war a dem biir kër sëñ Touba war a génnaat war a circuler ci dal yi ku ci ne ba ci man mi sànq dañ lay arrêté buñ la téyee itam nag eh, man biñ ma téyee ma leeral leen ne ñun ci ndigal lañu ñu nekk eh, laissez-passer bii comité bi moo ko defar te autorité bi warees na ko xam waaye dañuy wax ne ñun daal li ñu jox ndigal mooy ku fu jaare wut ak laissez-passer wala nga jaare fi ak euh, ordre de bu buñ la bàyyee nga jàll ma ne leen ah lii lañ leen wax ñu ne waaw ah loolu nag xaw nañoo jaaxal ginnaaw bi laa ci waxtaan ak euh, sëriñ Ousmane Mbacke mi nga xam ne mooy coordonnateur bi ma ne ko man de lii jaaxal na ma mu ne ma loolu nag comité bépp la jaaxal fu oto jaar dañ koy téye ba xaw naa bloqué liggéey bi fi mu ne daal bloqué nañ liggéeyu comité bi bu baax a baax a baax a baax. presse bi yëpp bu ñu ñëwee eh, dalal leen ak toppatoo leen ce ca ca nan leen di dalale ñun la war léegi nag su fekkee da leen a dalal ci barab ba noppi war a jóg dem seeti leen wala nga yóbbu leen xiwal ñu ne la fii doo fi jaar tëgg yàlla dana xaw a kiimaane lool. te it noonu itam nag ñeneen ñi ci des ñëpp te yor ay ay commission ci biir comité bi tamit ñoom ñëpp loolu la wax nee nañ daal. Eh, kenn mënut a mënut a mënut a circuler ci ni nga xam ne noonu ko ko bëggee foofu daal lañ tolloo kon maa xamul nag ah xëy na balay suba jombut yàlla mën naa dogal ñu weesu foofu waaye fii daal lañ tolloo kon ak ñoom. li lii dafay lu bees nii rek léegi laa ci wax ak suñu Ousmane mënuma ñu ne tam fii lañ ci tollu ma ne ko ndax sañ naa bu fekkee presse bi laaj na ma ci ndax sañ naa cee wax mu ne ma ah waaw loolu kat situation la boo xam ne ñun ñoo koy dund fi mu nekk nii loolu moo tax mu wax ci.